dina dindi ballonnement ak fatiguement général bouteille sirop bi vingt cinq mille francs lay jar vainqueur am na tamit poudre dix mille francs lay jar am na tamit poudre bu cinquante mille da ngay doon vainqueur par force vainqueur ca kër ga yaa fi mën yaa fi ne yaa jël coupe bi yaay vainqueur vainqueur am na tamit pommade ak huile à cinquante cinq mille boo xam ni day gën a guddal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

sama rakk ja teg ma ni ma dangaa bokk ci gétt bi da ngay naan ci loolu man ko su ma sañoon ba sama baay ba demee àjjana lu ñëpp def laay mu ni ma la nga mu defal la mu dàqal la mu ñëpp defal ndax dangaa toog dend mu assisté juróom-ñetti fan al amin social Aziz bu ñu jooyee nga jooy bu ñu compéré woon nga ko xam nga man loolu rek ma war joor faal sama baay kër gi sama baay jël kër gi mu dëkk yaa ko tëddee yaa dama bant booba yéexewul ba nga dam sol pour dem defal ko ko joor yëpp am na Bye. bu dee dee fanaan dinaa ko Moustapha ok bu dee dee fanaan naa ko ñëw. Agis social Agis social Agis social Irma fii la jaar lii rek la liggéey rek waaw d'accord boo ku ñëw boo wàcc da ngay sonn ok nii séddale nañ nag yëpp yëpp yëpp yëpp ñetti nag laa ilaaha illa barke alxuraan lii yëpp gis ngeen taas bi taas bi yëpp ay nag la woon lii yëpp ay nag la woon lii yëpp ay nag la woon gis nga lii yëpp ay nag la woon fu nekk nii nag yëpp yëpp ñetti nag benn un nag un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze ak cinq giléem yoo xamante lépp. ay social ñoo ngi way Mbaye. naka gàmmu gi. waaw neex na kontaan naa de. kontaan naa nag waaw bàyyi bàyyi Aziz ah bàyyi Aziz kontaan naa liggéey rek. wala ma leen comme ni nga koy waxee wala ma leen fàtte ba bëri. engagement total laa jël. waaw ngi nii. Hmm. engagement total laa jël man lëx daal ku ko lal. waaw ma taf la wax ci yow. waaw li ma saf ak li ma santé man Pape Beye. waaw géejewaay laa dëkk suñu kër day taa. ñeme naa ay wax ku ko laal ma lekk la. léegi dinaa samay loxo dama ni sëtt juma ku koy tabax. ah te pareegul di ko finition. waaw ma mais bërki démb teenee liberté six nag. waxal sëtt juma. makka juma mooy juma julli. makka juma julli. kenn du moom makka juma julli makka juma julli. doole ziar bu wér. ba am nga jàmm. waaw sant alhamdulilah. naka réew mi waaw ñu ngi sant yàlla bu baax. tey nga bokk ak Abdou Aziz Ndiaye euh, ndey ak baay muy jëf-jëf ci toll nii tey sa frère tey euh, looy yëg bu ko Abdou Aziz day yëg day jëf ni ñëpp di ko ñaanal looy yëg. Euh, dama ci am fierté parce que ku xëyoon am ku mel ne Aziz quoi parce que nit ku baax la li muy def yombul ku koy def jël ay centaine de millions di ko def ci benn bés. mbay ci li ma xalaat mooy ki koy defal jar na ko muy bisu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaw ku ko defal doo ko rek doo am ginnaaw Aziz ku baax la koy ñaanal li mu mën ren yàlla mën lu ko raw déwén quoi di ko ñaanal ñu ñaan ñaan nag si moom quoi ñu ngi jëf ci li muy rëy rëy lépp da koy jox jaam yàlla yi ne seen loxo jot seen ginnaaw dëgg la xëy boo xoolee ceeb bi ay camion la fi wàcce ndox bi ay camion diwén ay camion di ko may jaamu yàlla yi moom lu mu am moo ko moo tax ñun tamit lu ñu am rek Tiwaawan moo ko gënal te diggante Abdou Aziz tey donte sa mag la mais tam ngeen affinité muy sa xarit. Mm-hmm. waaw sama xarit la moom ay dañoo dañoo am sax. kersa sama diggante moom. xoolante ci mënuñoo xoolante ba wax la quoi. ko ñaanal yàlla rek yàlla na ko loo xam ne nag mënu wax ba bàyyi te du ma ci béréfil tuuti kenn ku ne xam eh, sa diggante ak Ama mu jub bis boo xam ne tey bis capital la muy diggante ak Modou Lo gisuñu la Gambie foo ne woon. ñëw naa de <laughs> dama làqatu woon rek. mbaa da yor ay da ngaa yor ay jinne léegi. non dama làqatu woon def asambaay ba si kanam hmm. waaw. mais ñëw nga Gàmbi. ñëw eh, li ñu jaaxal mooy combat bi enjeu bi ñu gis ni ñu bari jàpp ni ñi naan Modou mën ñi naan Ama Baldé yow mu jege Ama Baldé tey lan nga gis ci Ama. waaw Ama saa mun naa ne mu ngi nëbb mu ngi nëbb Sénégal lu bari muy nim mel ak jikkoom ak dooleem yëpp mu ngi koy nëbb Sénégal bala ñoo xam Ama lan la indi wala Ama lan la mën incha am teg takk jaaj yi takk ngemb li ba dogali def 100 mètres ci nationale boobu la ñuy xam kuy pël bi pël bi mënuñu ko xam léegi déedéet. ngay ku jege ama ñenn ñi ci ñi nga ñooy def analyse naan ñenn ñi ne ama parewul ñenn ñi ne ama pare yow bi nga xam tey ku ku jege ama nga xam nga ne mbër pare nga parewul te ñoo gisee ama parce que li 5 bareetul. waaw li 5 bareetul li des bareetul mais xam nga tamit bu njëkk ba dañoo waxoon ama moo njëkk a pare loo parewul mënuloo dem defaru jiwaat blessé tey làmb moo mooy mooy loo xamante ni kenn mënu ko natt quoi ku nekk ak sa favori ku nekk ak sa ordre kente toute façon moom li ma la mën a xamal mooy bu arbitre sifflé dañuy xam kuy pël bi wallaay xasim pare na moo gën a pare ki ñuy wax sax ndax lim moom feebaram daanaka ay ay un mois wala deux semaines toog lu yàgg loo xamante ni mu ngi woon entraîné maa ngi woon ñu doon ànd yeneen gars yi ay Amar ay yeneen ak yeneen ma fekke ko gis ko muy entraîné kon suñu ne ma parewul wala am na lu ko dal daf may jaaxal te ama sama xarit la te stade bi laa bokk léppam daanaka su ma ko santul tamit keneen dama koy sant lu mu bëgg suba ba ngoon maa ngi si man tamit lu ma bëgg mu ngi si nit la ko a raw de loolu kii da ngay daw kii kaay nag ma Malick Malick xam nga géwal xamul nag ndawal la xam géw kaay Malick badukaay gé Malick maa yooyu géwal xamul ndawal géwal xamul nag ndawal la xam nag bi daa maam ma jóg maa yooyu parce que social bi ma laaj dan maa soxla ah ñu bari dima xaat mooy maa yooyu comprendre leen daw bi rek maa yooyu bu ngeen ko gisee am benn problème tey ah, ñu gis engagement yi nga daan jël ci sa diggante sa frère Ama ah, tey ba tey yaa ngi ci engagé yooyu waaw maa ngi engagement bi li ma si xaw a jaaxale mooy baa mi nga xam ne dugg na si bi commencé jàppale ko laay ñu war a lu bari loo xamante ni daan naa ko def mën naa ne ma ko yokkul ma ko wàññi waaw mun naa ne nag mun nañ maa bañ a gis mun nañ maa bañ a gis yu bari nag mais lépp lu ama nekk wala pour am nam rek maa ngi si allah. parce que dañ dañuy gis des bu Ama Baldé ci biir géew wala Ama Baldé préparation ñu gis Badou ñu gis Badou Malick baytul nag bi ñu gis Badou daan engagé wu jël des jël bis bi au ñu gis li ma jaaxal mooy Gambie ci close yi nga nekkoon wala ci suufu siège wala ci xam nga jinne nga nag. <laughs> dama soloon kagul nëbbatu ma a gis le 5 incha allah. waaw dinaa feeñ ànd ama gunge ko yàlla may ko ndax couronne bi lañ soxla. nañ jël maxane rek. li jaaxal waa parcelle nee ñoom dañuy ñëw teg couronne bi mais dañ koy yóbbuwaat parce que Modou Lo moo gën a aptu doole moo dàq te mooy roi. da nga naan problème sax Ah. waaw defal nañ benn or ñoo koy defar léegi mu pare. moom bu nag moo indi basam ñun nañ ko indil or teg ko. Mm-hmm. waaw bu ñu paree jël ko. Mm-hmm. incha allah. Ah, tey kan mooy Ama ci wàllu sañ-sañ nga xam ne ju bëri neen ileeru gumba la xàmmewul jaaj ak joor ragal newul ci moom tey yow mi ko jege tey. waaw ah, pël bi man ma pël bi daa xay woowee sax nit la koo xamante ne nii dafa naqaree xam Ama mun nga koo gis ni tey mu ñuul suba nga gis ko mu weex Ama tey mu nga koo gis ni amul yaram wala dara mais Ama bu entraîné dix jours moomam boppam xale la wallaahi màggam des na mm-hmm. billaay màggam des waaw yow ko jege ñeme nga mu daw ni rinku mook mook Modou ñu daje bu koree Modou Lo leneen la ñuy wax yow Modou kenn mosu mu daanu mais damay rek am doo ko mu nelaw de ah. saat bi kenn nelawoo ko de ah. damay rek moo si njëkk nelaw de njëkk naa kay lañ koy tegal ah. <laughs> wàllu mystique jàpp yaakaaroo leen gars yi tëf miine leen ak yooyu non non pare nañ fépp loolu ay amaar geek ay kabiyaar nañ lépp ñoo ngi si ginnaaw rek naan leen nii la nii la nii la yëpp ñoo ngi koy teg amal jàmm yàlla yàlla <laughs>